ci sunu taxawaay ci ñoom xubbul wataniya minal iman Sénégal moom ak gox bu mu mën a doon ak béréb bu mu mën a doon ba kenn kenn lemoo ci sa néeg wala kenn ku ne lemoo ci sa dëkk nii ñëpp ni euh, dina baax te kenn kuy baaxal génnoon pour baaxal ko du mën a baax kon kenn ku ne na nga xam ni lay baaxal dëkk bi lay baaxal réew mi lay baaxal gox bi yow yaa ko war a jóg ngir def ko moo xam nag chef de village la moo xam sëriñ nga moo xam ab taalibi nga moo xam ab dongo moo xam loo mën a doon ci àdduna da nga war a ñëw bokk ci loolu mooy politique bu rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ba mu bëggee islam dox dafa gàddaye Màkka def li ñuy wax exil dem Medina taxaw fa ba yokk fa l'islam ak ña ko topp kon loolu kenn ku nekk boo bëggee fa nga nekk dox Lamine Dia bu gu yett aussi ñëw na fi ànd ak délégation mooy mooy lii xale yi taxawal sax ak ñoom woonu ci tamit le collectif des chefs de village li ngeen def lépp muy école yi ngeen di defaraat muy euh, étudiants yi nekk université yi ngeen leen di jàppale muy ci daara wax ci daara ngeen sakkateen ba lu def ci dëkk rek ngeen ko def dëkk bu ngeen ko am na chef de village te ñun ñoo ko fi nekkal kon ñoo leen di sant ci cër yooyu ngeen doon def cër yooyu ngeen doon jóg yàlla na ko yàlla yàggal ay xale ngeen ay jàmbaar ngeen ñu jàng ngeen xam ngeen tamit fi ngeen jëm yàlla leen yàlla jàppale ci fi ngeen jëm ba li ngeen bëgg rek ngeen am ko ci ñun le collectif des chefs de village dañuy nekk seen wet di leen jàppale ba lu ngeen bëgg ñu taxaw ci ak yéen ndax li ngeen di def it ñun rek ngeen koy defal ndax dëkk bu ne la fa war chef de village ba la war su ko mënee moom la war su ko mënul moom la war kon nag su ngeen jógee dem di ko ci jàppale mel na ni yéen a ngi ko ciy dimbali dëkk bu nekk fa nekk bu fa ña fa nekk ñëpp suñ defandoo seen bokk benn ñëpp génn te bokk dana dana dana dana waral dëkk ba am développement waaye nag am réew moom lu mën a xew ñëpp rek ngay bokk jàpp ñëpp rek ngay bokk jàpp waaye bu kenn ni dongo bi daa war di xëy di dem tool sëriñ bi daa war di xëy di tool di wér wala dongo bi daa war a xëy di gari ay mataka taxan sëriñ bi daa war a xëy ngaw bi dara dee Sénégal loolu yoru ko Sénégal xëy liggéey participer au développement du pays loolu moo koy jox kenn ku ne fa nga ca mën a jàpp nga jàpp waaye nag kenn jàpp ni rek dañ ne sëñ jiili rek sëñ jiili daa war a toog njaane di wér rek déedéet loolu moom fii day dem tool di bay lu may defar dëkk bi war caa bokk loolu laa gëm te ci loolu laay dox loolu ki laa war a nekk saa su ne rasulilah loolu la nekkal ngir développé Màkka ah kenn ku nekk dëkk ba nga ne fa la nga ca war a def la nga ca war a développé loolu mooy loolu waaye bu fekkente ni kenn ku ne da ngaa bëgg a toll sotti yéen xale yi jàpp gi ngeen jàpp ci dëkk bi taxawaay bi ngeen ci taxaw gis nañu ñu ngi leen ci sant bu baax Cheikh Fall mi topp ci mi seen kanam ak yéen ñi topp kenn ku ne dekk yi bu ngeen def lu ngeen fa def rek yëg nañu ndax dañuy ay dañuy eh, jot ay institution di nuyu le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane bi di de la commune de Méouane xam ne mooy deuxième institution bi di gis ci sama wet moo mu toog son son premier adjoint mu toog nuyu tamit le le chef de village nous avons une institution. ñoo fi muy sous préfet institution maire institution collectif des chefs de village institution ndax sous préfet président de la république moo institution maire population yi ñoo ko nommé institution collectif des chefs de village nit ñi ñoo ko nommé ak sous préfet ñoo ko nommé Nous am lu collectif des chefs de village nous appelons, lu appelons ëppale lu mu ëppale lu mu sous préfet Nous mu ëppalee sous préfet dañu ko maire dañ ko élire kooku chef de dañ ko élire ba pare nommé kon ñaar institution la boole kon kenn ku ne cër ba nga war a doon na nga respecté sa morom ndax soo ko respecté wul da lay bàyyi ci sa cër te doxalul cëram respecté na nag ñun chef de village kenn ku ne cër ba nga yor yàlla sàmmal la ko yàlla téyel la ko jox nañ de sa cër ba nga ci waaye ñu ne wax naa ko parce que démb yaakaar naa ne ministre de l'intérieur bi mu ñëwee fii foog ñu respecté ñu kooku dañu war a respecté ndax soo ñu respecté wul tamit dañuy taxaw respecté ci ñoo leen di di leen gërëm di leen ñaanal yàlla rahim àggale ko ci alhamdulilahi alamin te résultat bu ci bëgg yàlla defal mm. El Hadj le premier adjoint de lay nuyu di nuyu sëñ Mamadou di nuyu sama connexion de village yi El Hadj Ngoda bu Jaxate El Hadj Modou Mbeng bu Cembeel euh, Baye Mamadou Diop bu Mewane Baye Mbaye yeneen chef de village yi teew yëpp waa Mbaye Diallo gis naa leen fi ak yëpp ak yëpp ak waa bu yëpp waa Ndànk yëpp gis maa ngi leen di a di leen sant bu baax di leen gërëm